aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim waaw mbokku Sénégal mbokku àddina ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen woo ci sunu xadaratul juma bi nga xam ne le 8 mars lay tomber ren mu tomber nag journée internationale de la femme ñu ci woowaa waa diaspora di ci woo Sénégal di ci woo bépp mbooloom jullit ak dëkk boo mën a nekk surtout nag fii ci Sénégal ci quatorze régions bi bàyyiwuñu kenn ñi ngi leen di woo ci sunu xadara bi nga xam ni dañu ci bàkkal yàlla di ci tuub sunuy bàkkaar yàlla def ren jigéen ñi am chance mu tombe ak sunu journée internationale de la femme ñu ciy woo nag suñu première dame Adja Marème Faye Sall yaay yaayu nation bi yàgg ngaa ñëw ci xadara gi yàgg ngaa sagal tarixa bi yàgg ngaa sagal julliti woo nañ la ci sunu bés bii dina wax nga teew di ci woo Adja Bili Ba jabaru premier euh, premier ministre Amadou Ba Adja Bili ñëpp xam nañ la ci social xam nañ ci baax ak ci oyof woo nañ la ci sunu bës bi la 8 mars ci stade Amadou Barry bu Pikine ñu ngi leen di woo yéen ñëpp di ci woo Dia Dosso Diawara vice-présidente assemblée nationale ñu ngi la ciy woo ndax ci sa fief la ñu lay wax yaay bés ba nanga ñëw ak képp koo xam ñu màggal jigéen ñi sargal jigéen ñi ñu ciy woo sunu ministre de la femme faatu jaane Guèye yow nag bés bi sa bésa ndax yaa jiite jigéen ñi yaay dimbali jigéen ñi yaay wéeruwaayu jigéen ñi woo nañ la ci xadara gi ñu lay wax madame la ministre nga ñëw teew ànd ak ñun jigéenu xadra bi yëpp nga teew ministre Thérèse Faye ministre du développement communautaire woo nañ la ndax yow social ci sa ministère la bokk ndimbal ci sa ministère la bokk te man xam naa la nit ku baax nga ku mën a dimbali waate woo nañ la ci suñu sociale bi ñu ci boole waaye woo nañ la tamit en tant que jigéen ndax 8 mars bi sa bës la ci jàmbaari jigéen yi nga bokk. ministre de la santé Xemes Ndiaye ya yor wér gu yaramu njabooti kon bés bi sa bés la madame le ministre woo nañ la ci ñu ngi woo tamit euh, madame le ministre Annette sec di woo madame le ministre aissata Tall Sall ministre de la justice ñi ngi woo tamit madame le ministre Victorine Ndeye bi yor microfinance ak euh, économie solidaire Yen ñep ngeen di ay jambari jigen, yo yoo yen ne tek la ci bo ngeen bok ci gouvernement bi ñi wo nak ministre yëpp bàyyiwuñu kenn ñi ngi wo le ministre Doudou Ka sey jigen ñoo lay ci bés monsieur le ministre Doudou Ka ñi ngi monsieur le ministre Lat Diop yo Lat Diop ñu ngi lay wo ndax way sa fief la ta fofu nga bok te ñep xam nañ la ci sa solidarité ak sa nimbal ñu ngi woo monsieur le ministre Moustapha Ba ministre des finance ñu ngi lay woo ci bés bi di jàppale jigéen ñi di leen suturaal di leen dimbali ñu ngi woo monsieur le ministre Alioune Ndoye di la woo ci bés bi di woo monsieur le ministre Pape Sagna Mbaye di woo ministre yëpp ñu ngi woo présidente au conseil des collectivité territoriales Adja Amin Ata Mbengue Ndiaye ñu ngi lay woo yaay di la woo ci bës bi bës bi sa bës la ñu ngi lay woo yaay nga ñëw teew jàpp ci solidarité bi ñu ngi woo Néné faatumata taal directrice su FONGIP Néné ci kër gi nga bokk ñu ngi lay woo ndax sa maam la rek la woon ak waa tarixa bi ak sunu sëriñ si kon Néné bés bi sa bés la ñu ngi lay woo di yaakaar ci yow pour nga jàpp tamit ci solidarité bi ñu ngi woo Aminata Diawo directrice su Promise di la woo tamit ci suñu bësu xadara bi ñuy def stade Amadou Barry bu Pikine ñu ngi woo tamit jigéen yi nga xam ni bokk nañ ci institution yi ñu ngi woo bépp jigéen ci obédience politique boo mën a bokk ñu ngi leen di woo muy parti opposition bu mu mën a doon ñuy woo Marie Sow Ndiaye bu PDS di woo jigéenu waa parti socialiste di woo madame le maire Soham El Wardini di woo euh, jigéen yi nga xam ni ñoo nekk ci bépp obédience politique ndax boo limee doo jummee doo matale ñu ngi woo Juliette Zinga bu par parti socialiste Adja Zinga Juliette Zinga ñu ngi lay woo ci bës bi di woo ñëpp nag. di woo sax sunu mbokk chrétien ndax ñoom am na ci ñoo xam ne ay soppey waa tarixa bii yi dañuy zikkar. di way suñuy wayu sëriñ kon ñooñu ay invité d'honneur lañ ci bés bi ñu ngi woo ñëpp daal na ñëpp teew te képp kuy ñëw na nga indaale cent francs pour ñu dugal ko ci caisse sociale bi nga xam ni moom la ñu bëgg a démarrer jàppale néew di doole yi couches vulnérables yëpp yi nekk Guédiawaye daara yi école internat yeeg hôpitaux yeeg yëpp keneen nag bu amee yéene def te yàlla rek tax lépp lu mu yéenee bu ko indee ca bés ba dinañ ko wax boole ko ci mbir mi allahuma naa ala xam ne yàlla nañu yàlla may fekke tatal ñu tal ko te mu réussir lu gën a kawe suñu ndox illallah la ilaha illallah la ilaha